ci biir euh, kawu APR euh, dinañu gis yenn euh, membre APR yoo xam ne dañuy wax ne dafa manqué organisation ci biir parti bi que ñi nga xam ne ñoo mujj ñëw ñoom la ñuy privilégié bàyyi ñi nga xam ne ba muy metti ñoo fi nekkoon mu mel ni loolu aussi est-ce que amu ci. kan moo kan moo yow ci yow ci ban exemple nga jël par exemple par rapport ak li nga wax ni par exemple. non exemple bi cest dire que am na benn jour benn responsable bu nekk Grand Yoff bu ma invité. sama studio ñu waxtaan ci jafe-jafe yi nekk ci biir APR mais loolu la ma yëgal ne sentiment boo xam ne c'est partagé au sein de l'APR. waaw loolu loolu sax man di nga ma ñu daan dégg sax yenn saa yi moo ci yëngatu tamit daal parce que euh, njaboot nañu quoi te président Macky Sall mooy président bi moom lañu jëloon jiital ko ne ko yow lu ñu jiital nga nekk suñu kilifa ci wàllu politique bi ànd ak moom ba dara dul dara xam na ñooñu ngay wax am nañu ci bokk mais président tamit boo ko xoolee. dañu alliance pour la république bu ñu alliance rek mooy booloo wut mbooloo gën ko yokk te parti tamit yaakaar naa ni booy créer parti pour pour jiite réew la c'est la vocation d'un parti c'est la conquête du pouvoir par la voie démocratique et légale président Macky Sall donc bi muy woote moo tax parti bi sax en fait du ko waral sax loolu sax du du maanaam du nu ñu koy waxeetee sax du loo xam ni saafaan la parce que lu nu ñuy gën a baree rek expérience yi gën a bari parce que fi ñu jógee bari après ni ñu ko créé loolu la ñu nekk fi li ñu jógee moo tax idéologie avant ñu sañoon idéologie libérale la daañu ci dellu si léegi bi partie bi ñoo di dox président ci boppam avant ñu jël nguur gi am ñu àndal mooy les alliés te Macky Sall dafa woon la patrie avant le parti ma ne woon naa ko sax ma loolu président li ma gënal mooy un parti fort au service de la patrie dangay ngay dëgëral sa parti parce que ñun quand même ay patriotes lañu ñu njëkk ñoo ànd ak président Macky Sall bi ñu koy bundu mais ñun koy wax dëgg yàlla bu ñuy wax ñu gëm réew mi lu nekk xajoon na ci kay ñoom la ñu war a njëkk wax mais lu te président tamit euh, pour defar réew du mun a yem rek ci benn bànqaas ak ci benn kuréel yaa xam sa njaboot yaa xam sa askan yaa xam sa waa diine yaa xam ni sa tarixa mais da nga yara yaatal parce que état dafa maanaam réew dafa weesu daal yooyu yëpp daal wàllu waasoo wàllu dëkkaale wàllu bokkoo diine bokkoo gis-gis yu demee noonu mais daañu bokkoo gis-gis loolu mooy moo ñuy boole donc loolu nga wax am na te président xam naa ni rek wax dëgg yàlla kër ba mu ñu mujjee invité gën a fësal ni moom tey lu ñu gën a téye gën ñu gën a bëgg mais xëy na ñi nga xam ñoom la àndal ba ñu xëyte yàlla indi ñu fi muy suñu alliés yu baax yi may nuyu muy benn boo ko yaakaar ñoom nekk ay kàngam xam luy réew yàgg ko jiite yi réew xam luy réew ànd boobu yaakaar naa ni euh, am na solo mais jutee président tamit xam na kën a bàyyi xel tamit ñu ngi xam ñoo nekkal parce que parti tamit frustration baaxul daal ñëpp koy vivre mais degré yi bokkul am na yoo xam ne aussi tamit am na leen lu koy waral président mun na jël décision yu baax mais fekk am ñoo xam ni tamit ñooy influencer les choix président na ko ànd ak dal la mais nit la rek tarixa xëy sax suñu xalif général sa yenn saa yi nga gis ci penc yi am ñoo xam ne ñu leen ñoo xam ni daañu def loo xam ni xëy na sëriñ bi sax ñu def loo xam ne sa xëy na ñàkk xam mooy tax nit nit la rek mais yaakaar naa ni loolu mu wax am na solo mais li gën a am solo kay mooy par exemple ñoo xam ni président daf leen defal lu nekk te yelloowuñ ko xëy suba doon boddi sax ñu ngay wax parce que loolu ngay wax noonu comme Ablaye Ndiaye boobu ngay wax tey jii mais. ay tàppale ak ay rambaaj ñoo tax sax Abdoulaye Ndiaye kook sama rakk la grand yow xam moom nga wala ak ñeneen ak ñeneen ñu bari jóge nañ fii man sama wàllu bopp sax commission des lois bi ma doon pendant trois ans jëm ma xëy suba léegi simple député la mais sama diggante ak Macky Sall ay fal parce que man bi may ñëw ci député ma am naa sama liggéeyu bopp mais di nga gis tout à l'heure bureau sax ko mais yàlla bi yàlla dërul ba nu may ma fàttali la ko dégg ma juróom fukki état ak juróom du ma téeméer ñetti téeméeru député nekk fa bi ñu ma xàññee sama poste yi fii mais foofu léegi kuréel boo xam ne imagine 300 députés ma nekk président de la commission des lois di foo xam ni sama bureau ëpp na fii sax te fi nekk benn waañ mu ndaw laa am fii léegi pratiquement donc pour mais est que loolu tax na man may attaqué président déedéet mais ñi nga xam ne ñoo gënoon nguur te fekkee wuñ ko tey ñu ci bari tey ñoo leen xañ tey seen teraanga ci ay fenn ay tappale loolu daañu ci dellu alors euh, euh concernant kaawu Moustapha Diakhaté tey exclure nañ ko définitivement selon les textes euh, Moustapha Diakhaté li muy euh, faral di fësee mooy liberté de ton bi mu am euh, liberté d'expression bi mu am est-ce que ci biir parti politique aussi yoon la walla bokk yell na ci koo xam ne dafay jóg di wax opinion am ñu singali ko daal di koy daal di koy dàq. xam nga man Sénégal li may xaw a léegi. maanaam xam nga buzz la yéen ak mbokk taskatu xibaar yi yaakaar naa ñu tamit euh, li ñaan rek euh, lu yëngu ko yëngale ko pour doole yaakaar naa bu télévision yi bari micro yi bari wax ji neex trop yaakaar naa ni léegi moom ñu léegi ay rëbbkatu buzz ngeen yaakaar naa et loolu moo waral léegi ay assemblée fu nekk ku jóg rek ne man maay waajo parce que dégg naa ñuy wax sa naan way Moustapha foofu laa bëgg egsi ci mustafaa Diakhaté mi fi ne woon dégg naa yenn saa yi moom moo ko moo ko moom moo moo moo moo créé film boppam moo defar cinéma boppam ci laa yaakaar parce que yéen fi ngeen ko téye membre fondateur la wax ko tu dëgg la moom loolu lay bañ loolu du jàmbaare man gënuma jàmbaar. dafay rester mais xam a constat yéen ñii en fait ñàkk xam-xam la et je crois que jaar-jaaram ñu ne ñu am saa jaar ci école du parti parce que militant dañu ko war a tàngal. parce que parti boo ñëwee ba dugg ci dama ne nga nekk jaraaf nekk ci benn équipe de football Sadio Mané nekk Liverpool par exemple di jël bal bu ko attaqué au lieu mu dugal kaam mu koy delloo ci kaam bale ci ginnaaw loolu yaakaar naa ni <laughs> exemple bu ndaw rek laa la jox mais yow mën a nekk ci parti boo xam ne yow bi ñu koy sanc fekkee woo ko Moustapha Diakhaté ñu ngi ñun Macky bi ñu commencé ànd moom di xeex avant 2007 la ñu ànd ak président Macky Sall boobu Moustapha Diakhaté ma nga PDS ñu newoon PDS ak moom. ñu dikk ko benn titre administrateur du parti mu lang ci mais xam nga sama bàyyi Abdoulaye Wade kenn du ko kenn du ko jàngal moom maanaam moom ay ay phase bu ma ci nekkee Macky Sall ñu créé suñu APR xëy suba Macky Sall génn assemblée mosoo génn musoo ko dégg ñu jóge fa dem élection locale fekkul bu ñu créé APR fekkul lu ñu daj ci naaj bu tàng bi man biscuiterie APR fital sax dal na fa. APR dama ni du ndox mu sedd ak njar lañ ko defee même xamul fu ñu jaar moo tax bu mu ñëwee léegi ñetti weer lañu ci teg mu ànd ak Lamine Ba dem parti local sax bi ñu dem sa àndul ak ñun Lamine Ba la àndal parce que Abdoulaye Wade boobu président Macky Sall créé na parti léegi mu bëgg ko faagaagal wàññi dooleem Moustapha Diakhaté la utiliser moom ak Lamine Ba ki gën a bañ Macky Sall ci àdduna Lamine Ba sax damay def fois ne ko rakk dama xamul yow lan nga ñoom ñaar ànd bu ñu demee am ñaari député je crois ma ñaar ci ñëw maire de la ville ci lay ànd ak ñun président Macky Sall dénk ko xalifa Sall bi nga xam ni ñu njëkk a taxaw pour ñu daq ab pour ñu condamner xalifa Sall ci la bokk donc su ma déggee gënaan Moustapha Diakhaté jàmbaar la dafa dëggu yenn ñi kay dafa naa ñàkk xam la mooy parti politique la mais du jàmbaare Moustapha Diakhaté man bu dee jàmbaare man xaw ñu egg sama tànk ak ñeneen ñeneen kon tey jii bu ñuy wax ñu waroon wax tey moo ñu mel ni par exemple ay Mbaye Ndiaye. Birame Faye mi nga xam ni rakkam ne woon président de groupe parti suñu devise parti xam nga mooy lan travail solidarité dignité liggéey xamul liggéey parce xamul liggéey jàngam su amee baccalauréat ci lay am BCEAO bi muy wax joxe lettre la fa noonu courrier benn sëriñ ko fa dugaloon kon bu nekk fi di nax nit ñi naan syndicaliste non jàngul xamul waaw oui mais est-ce que bu jàngul woon maître dina nekk député dina dina défendre ay opinion yoo xam ne boo xoolee dans la réalité dafa intéresser sénégalais yu bëri. mais léegi daf ni dama yaakaar ni yéen 2012 ba 2017 dafa naa newu leen fi woon ma maanaam président commission de loi ba ñu affaire affaire CREI bi maa ni CREI bi àndul yoon nañ ko xoolaat. mais moom ñu gën a nekk avocat CREI yi bu ñu yóbbu ñoom Karim Wade gis naa keroog bi Abdoulaye Wade di jubóog mais lu mu fi yàqul ñooñu amul ba ci Abdoulaye Wade saaga na fi sa Abdoulaye Wade groupe parlementaire bi nga xam ne Abdoulaye Wade ñëw na ko may ko fukk pour les groupes moo xëy suba pour dàq ay dëmbooj am ak moom problème def ko douze ak yeneen ak yeneen ak yeneen kon tey bu taxawee yéen ñu naan man na dama naan Sénégal fi dama ko léegi ban Sénégal la fa Moustapha Diakhaté loi yi fi gën a kii mais moo ko moo ko xeex waxuma ne député yoo xam ni moo leen dàqul fi ci assemblée ay kat si sewan ay ñoom Samba Koyta ay Cheikh John yëpp ci ay feneen ay tappale et là crois que président tey occasion am na quand même sama wàllu bopp commission des lois def na pétition pour ma jóge fii affaire étrangère tey jii moo togg loolu bureau sax amatuma ko mais man tey laa gën a nekk góor ànd ak président Macky kon moom yooyu muy woote yéen ngeen koy jàppal woy c'est le courageux vraiment qui non je loolu ñàkk a coloré et puis loo xam ne sàmmoontu la maanaam tagge parti parce que dañuy suñu parti solidarité mooy ànd ak solidarité moom bu nekk gouvernement sax xamu ni gouvernement boo ki nekk yaa solidarité gouvernementale yow moo nekk président de groupe boo xam ne fii nga nekk juróom-ñaari at référendum bi loi bi nga xam pour yóbbu Khalifa Sall pour dindi liberté parlementaire am moo ko xeet Khalifa Sall lu nekk defal na ko premier oto bu mu dawal Khalifa Sall moo ko jox liggéey jox ko jox ko lu nekk. kon moom bu ñëwee taxaw tey ji di wax ngeen naan wéy bravo jàmbaar jaa nga vraiment man jàmbaar léegi dama yaakaar ni il faut ñu xool la woo jàmbaar a gor Macky Sall dem nañu ba xeex ba 2012 et là maa ngi gërëm madame la président parce que gor mooy tax di xool démb parce que président Macky Sall Ndiogo Wax Seck moo jël mais Moustapha Diakhaté fi mu dëkkoon fii rëbës mais balaa ngay wax courant sax wala nga am une base loolu daañu ci dem la ngeen laajte ko fa wala ngeen dem Touba. ñu dañoo am ay base comité sax amu ko mais balaa nga naan nekk koo xam ne bu ñuy fekkee créé woo comité mooy cent personnes ñu ku ci nekk ci am nga quinze comité Moustapha Diakhaté xanaa courant boobu muy wax moom xanaa moom courant ñaari volte lay nekk xanaa bokk parce que courant moom il faut foo koy jëlee foo koy marché sa micro bi am fu mu dugg même fan loo koy defee ndax Touba wala ci asamaan si wala boog seen réseaux sociaux yi je crois nekk base am ci biir ci biir courant boobu mu duppee euh, euh, manko taxaw sunu APR est-ce que Diat sànq yaa ngi wax ci sa discours ne am na ay frustré yu am amu leen ragal ni frustré yooyu mën nañu fekk si Moustapha Diakhaté ngir euh, ànd ak moom. man man dama xamul ndax dama war a wala dama a jooy quoi mais frustré yi nga gis ñooñu nga ñu bari moo leen daaneel mais jamono mu nekkee assemblée moom mais balaa nga naan naam nekk fi yoo nekk fi président de groupe. yore sa deux mille affaire deux millions laa waxoon xam nga mu ne cinq millions yore sa groupe mais na nga laaj ñan à part ñaar ñoo xam ñoom la newoon muy allié yi daa ànd ak ñoom suba ngoon lu ma am séddoo koog ñoom nee na man amul lu ma justifié mais moom balaa nga naan naa nekk moom tey ban APR la ñeme taxaw naan maa leen di boot ragal naa de bu ñu ko rotee de xam naa ndiggee moom ay gaj yi dina ko ragal naa ni ndigg du ko amati kon mosuma jox affaire boobu mooy noonu APR mais nga gis yëpp mu indi leen fii sax ci APR. mais ay noonu après la teg leen seen ko Moustapha Diakhaté il a un complexe militant la première heure kon frustré yi mu wax yaakaar ne bu ñëwee bay boot ci Moustapha Diakhaté ma xam ni kon li ñu ngi sën mu jëmee kanam mais ñoom ñoo la gën a bañ ñoo la gën a sib Moustapha Diakhaté Moustapha Diakhaté bu nekk fi assemblée mais na nga laaj député yi fi newoon rëbës gi fi la cosaan amoon benn néeg bu ñu ko fa abaloon mais bu ñu ko falee ci la fa gëj parce léegi am na xaalis il a des centaines de millions. responsabilité yi aussi euh, c'est adapté que commode que nga nekk ci yenn yenn kii. non bañu ma loolu mais man Maris laa dëkk mais usine benn tali ku ne ma ku ne ma ku ne ma ne ku ne ma jibi man la fa naam yooyu nit bu dee amuloo comité amuloo base politique yenn saa yi mu boo Touba Touba moom dañ ko dàq parce que pratiquement li ñuy wax ay salafiste yooyu moo leen raw tarixaak yooyu mu seen gëm Moustapha Diakhaté mais yàgg nga dégg waa Touba di ko ŋaññi ci ay ci ay waxam yu ñagas man su ma gisee ñu naan Moustapha Diakhaté vraiment nit ki jëmmam rek soo xool di nga xam ban façon nit la Moustapha Diakhaté dafa xay di il n'a pas l'élégance nii naa la port donc loolu mooy jàmbaar Sénégal léegi taxaw naa ne président lii du dëgg nangam nangam loolu loolu ngeen di bravo yéen fi nag yéen da ngeen bëgg finalement ay je sais pas des des des héros yoo xam ni di genre quand même vraiment de Don Quichotte les moulins en va mais Moustapha Diakhaté continué na yaakaar pour jël APR si am seen xol dafa dafa tàng ak yooyu mais non na hélas nag yàlla. d' accord ragal naa ñu mere la quand même ah. War xoolal en fait euh, Moustapha Diakhaté bëri na ci ni nga xam ne doxinu réew mi sénégalais yu koy ŋàññ te bu ñu déggee discours Moustapha Diakhaté dafay euh, conforme un peu ak lii nga xam ne moom la sénégalais yi di joytu est-ce que loolu aussi euh, nekkul benn genre dëgg boo xam ne euh, daf koy daf koy daf koy daf koy yëgal pouvoir bi ngir ñu mën a xoolaat seen doxalin. Moustapha Diakhaté maanaam li ñu naan rek yaakaar ne waxoon naa ko ba le pass naa président mu taxawee naan Sonko bu ñu ko attaqué xam naa sax Pastef xam naa ñu koy lal ay basang préparé ko ay njaaram ak yooyu quoi xam naa Moustapha Diakhaté su son joueur maanaam day lotori wàccoo alternance ba mu newoon ñu mu fa àndoon ñoom Ola Ndiaye daf leen trahir fi mu nekk 2024 day jéem ne wu pour bu ñu ko dàq ñu ne moom wax dëgg yàlla mais loolu du wax dëgg ñàkk a ngoro di la du wax wax dëgg sama jaxte bu dee jàmbar rek ñemi fit rek mais sax mais dafa naa ni sama ngelaw sax laa la weesu na ko man bala ma xamul dégg ngeen ma man biscuiterie du caaxaan mais Moustapha Diakhaté en fait li mu bëgg comme le Sénégal yi loolu ñu bëgg ay waaye ndeysaan jàmbaar jàngoog moom kay mooy wax dëgg mais dëgg ak feddi coloré daf naa loolu moo gën a bon ci àdduna fi mu jaare président Macky Sall mais poste yi mu am du jàngam moo ko may bu amee baccalauréat ci lay am moo je suis venu am doctorat en am sama cabinet bu dee jàng tubaab gënu ma ko xam bu dee lakk bu dee présentation ëpp moo ko Pape Birame Touré rakkam nga xam ne maire la woon 2014 2000 2009 mais moo ko doon dimbale sax mais fayul naar ba xoromam mais madame la présidente bi ñu ñëwee ba kii mais bi ñu ko ñëwee Ndiogou Wack Seck moo ko fa woo kañ la ko Ndiogou Wack a gis mais madame Faye maa ngi koy gërëm moom jàmm rek la bëgg mais bu mu ñëwee man président ban bàyyi ma rek mu nekk ci garaw première et cetera bi ñu ko nemmee tête tête de département bi mais Moustapha Diakhaté mosul dem campagne mosul dem campagne. xaalis campagne bi c'est des centaines de millions am na sa dégg naa ñu koy laaj mais xaaral nga ne yéen kii kuy am courant mais da nga néegu ñax boo toog boo xam ne au moins di nga ñoo fa jël fi nag moom léegi moom en fait base mooy ñi nga xam ne <laughs> ñoom mer ci APR léegi ñoom ñoom ñu ci jooñ yaakaar. d'accord alors fëgg leen. d'accord alors maître au-delà de tout ça gannaaw ay jàmm est-ce que tey gëm nga ni médiation mën na am pour que Moustapha Diakhaté dellu soit ci APR. bon APR sax man en fait nga baal ma ko parce président maa ngi koy nuyu euh, Moustapha Diakhaté et là maa ngi wax ñi nga xam ngi jàng droit du bañ di lire les règles du droit en diagonale en médiane parti bi dafa ay sart muy liggéey booloo te ba noppi di sàmm honneur parti bi mooy la dignité mais boo taxawee ne Guy Marius Sagna pourquoi ñu jàpp ko. pourquoi ñu téye kii pourquoi ñu def laa nga nekk ci benn parti mais moom pourquoi moom mi koy nee président de groupe mu yore ay 2 millions yore suñuy fonds politique yi xam ne dañu ko joxoon pour mu téye parti bi mu ci ay kër def ci n'importe quoi di ci fo mais pourquoi yi daawul def loolu pourquoi mu bàyyi parce yaakaar na bu ko Macky Sall président Macky Sall wala fee mu nekk comme Jean mais président Macky Sall moom ndaanaan la ku ko song xamul moom loolu la yaakaaroon. moom faj mer lay def bu yéen a faj mer léegi mu indi révolutionnaire ah mais kon baax na bu yéen ngeen di jàppee révolutionnaire nekk fi président pendant cinq ans di laa sa 3 millions wala sa 2 millions sa 5 millions sax la wax te 5 millions yi président dugg ba bind naa assemblée nee na Moustapha Diakhaté nee na 5 millions lay am te président gu 2 millions lay am bëgg naa yéen ngeen tontuñu ci. médiation moi je crois que des fois sax da ngeen mettre waar dafa dëgër ay kàddu yu demee noonu parce que am na jamono yoo xam ni. bi ma nekkee président commission des lois ci bonaayam ak soxaraayam mu nekk président de groupe di ma teree may wax tàggu naa ma ne ko yow maa lay jàpp duma la bëccëg ndar kàmm ma jox ah, am na ñoom président su ma bàyyi woon ak ñoom bi laa dàq sax du ko aj noonu ngi def nii comme soldat quartier ni ngay maaje daañu ko def man dàq bi sax gënu lu ma en fait nañ ma ko dénk rek benn fan ñaari fan ah non man ku sa papa ak sa yaru ma dama lay yar.